képp ku yàlla na mu ci yaw yiw ak mbaax dalay déggloo diine allahu akbar man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin allahu akbar allahuma faqihna fi diin ya rab moo tax sa jaamu yàlla ginnaaw ba nga nee jullit nga yàlla du la ko nangul lu dul ñaari condition yi dañ cee nekk déglu lu baax te lépp loo xam ne ñu yaa ngi koy def muy jaamu yàlla xool ci ñaari condition yi bi ci njëkk mooy na fekk yàlla rek a tax ngay def jëf ji moo xam da ngay julli fekk yàlla rek a tax da ngay woor yàlla rek a tax da ngay joxe azaka yàlla rek na tax mais deuxième condition bul ko fàtte mooy fekk noonu la ko yonent bi jàngalee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii nag mooy premier pilier mooy ci pilier les cinq piliers de l'islam mooy base bi boo ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna rasulullah wala boo nga ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gis nga yeneen ñeenti pilier yi ci muy julli koor zakat yëpp du am sens ak façon jaamu yàlla yi di ñëw ci ginnaam yëpp du am sens loolu fekk ni bi ci njëkk première condition mooy que ni fekk yàlla rek a tax nga koy def fekk noonu la ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam naam mbokk yi da ngay gis ñoo xam dañuy sonn lool ci julli sonn lool ci koor sonn lool ci azaka sonn lool ci jaamu yàlla yi soo leen laajee ñu ne yàlla moo tax ma koy def c'est sûr waaye nag deuxième condition bi ñu bari ci lañ daanu mooy que ni defuñu ko kon na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa mu nekk perte dangay gis koo xam day julli. moo tax bul xool mbooloo bi rek waaye xoolal jàngal laajteel est-ce que lii dafa bokk ci lislaam tey jëlal julli da gis ñu bu ñuy julli tey avant ñuy liqaam wala avant ñuy nodd dañ naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah bokk ci ndax yonent bi jàngale woo ko sallallahu alayhi wa sallam kon bul ko def boo ko doon def bàyyi ko da gis koo xam day taaye di julli ñoo ba fu muy sëlmalee ne asalaamaaleykum rahmatullah gis nga ne nii loxo yi déedéet yonent bi sallallahu alayhi nii la jàngale bàyyi loxo yi boo taayaa ba pare booy selmal bàyyi loxo yi noonu rek ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah da ngay gis ñoo xam ne bu ñuy selmal dañu naan asalaamaaleykum wa rahmatullah gis nga ni bokk ci yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam day julli ba pare après di bind ñii naan nii ñii naan nii lii yépp bul sonnal sa bopp yonent bi yàlla yónni woon te wóolu ko te nag jaamu yàlla yàlla du la ko nangul mukk lu dul fekk yàlla tax nga def ko waaye nag comme nu ko yàlla yonent bi mu yónni sallallahu alayhi wa noonu la ko defee sinon rek perte nga kon mbokk yi bu ñu sonn fekk duñu fayeeku li nag mooy lu gën a triste mooy nga jël sa waxtu yépp ne yaa ngi jaamu yàlla mais fekk ni yàlla nangu ko ndax lan mooy que ni defloo ko comme ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla déggloo ñu diine musal ñu ci parparloo mbokk lii mooy lislaam soo comprendre loolu mooy que ni sa julli sa koor sa aj sa lépp danga koy def te yàlla rek a tax waaye comme ni ko yonent bi jàngalee Muhammad